الحمد لله القاهر فوق عباده الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi ñuy déglu ak di ñu seetaan yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di leen ndokkeel ci weeru tedd wi ñu nekk muy weeru shahru ramadan al mubarak allazi unsila fii al quran ñuy ziyaaru ñëpp di leen ci ñaanal sunu boroom lépp loo xam ne def nañ ko ci ay jaamu yàlla ak i nawaafil mu nangul na ko te laqañ na ko fa yàq eggul ñuy jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi maolana cheikh mahamadinil muntaqa al xalifatul am li tariqa al muridiya di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi lool tam ànd ko wér ba mbooleem naa li nga xam ne naalal na ko lislaam naalal ko yoonu murit sunu borom kàttanal ko ba mu eggale ko na mu ko bëggee di nuyu bu baax waa daayiratu muqaddamatul xidma ci njiital sëriñ Afiya Buso ci taxawaay bu am solo bi ak jotaayu xam-xam yi nga xam ne dañ koy taxawee ci weer wi saa su nekk eh, ci biir jotaay yooyu jataay bi ñu nekk di benn ci yooyu mooy yi nga xam ne dañ koo jagleel ay bind yoo xam ne dañ ko ci jël ci bind yooyu ñu tànnoon ci benn tomb euh, war cee ànd ak mbokk moo xam ne yaakaar naa ne nekkatul ku ñuy présenté ci fànn yi mooy fànnu euh, xam-xamu diine waaye nekkut nekkut ku ñuy présenté ci barab bi mu toog muy sëriñ Souleymane Badiane di jàngalekat di yarekat itam waaye di koo xam ne saa su nekk rek mu ngi jéem a tasaare njàngalem diine ci mbooleem euh, jumtukaayu xarale yi saa su nekk ñu tànn benn bind tuddee ko al al idda euh, ay xeetam ak ay atteem ñu war cee ànd ak moom ngir mu fàttali ñu bind boobu ndax bind boobu fàttali lay doon ci ki nga xam ne euh, xam na waaye bind bu bees lay doon ci ki nga xam ne xamut ndax inna fi dalika la dikra liman kaana lahu qalbun aw alqa sama wa huwa mu mel ne xaw nañoo yeex a tàmbali lool waaye ci tënk rek eh. euh, mbokk mi dana ànd ak ñun ci leeral ñu lan mooy idda eh. bu weesoo loolu danañu leeral xeeti idda yi nga xam ne moo am dana ca tegit atte yi nga xam ne moo ci moo ca topp ginnaaw ba mu mujjee aasaar yi nga xam ne moom mooy euh, topp ci al idda kon ñu bañ a guddal rek dañuy bàyyi suñu Souleymane incha allahu taala mu dugg si ci tomb bi su ko defee incha allah ñu euh, teewlu ko bu baax a baax kon suñu Souleymane ñu bàyyi la nga tàmbali bismillah tafadal mashkura wa audu bika rabbi an yaxduruun bismillahi arrahmani inna alhamda lillahi wa kafa wasalaata wasalaama ala nabiyihi wa rasulihi almustafa wa ala alihi wa asxaabihi wa man istafa amma baadu fa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi sant yàlla di julli ci yonentam bi ngën ji mindeef sallallahu alayhi wa sallam di ndokkeel sunu bopp di ndokkeel waa daayiratu muqaddimatul xidma waaye di ndokkeel képp ku teew ci jotaay bi di leen ziyaara muy jotaay bu màgg boo xam ne ñett màggal na ko benn bi mooy barab bi di néegub yàlla rawat na néegub yàlla bu tedd bii ñaareel bi mooy jamono mu nekk ci weer wu màgg muy shahru ramadan ñetteel bi mooy li ñu tax daje te mooy jàng ak fàttalante ci sunu diine ñu tànn tomb boo xam ne tomb bu am njariñ lay doon insha allah di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiiqu leeral ba képp ku topp jotaay bi rekk mën a fàttaliku mën a xam ba tomb bi leer ci yow waaye balaa ñuy ñëw ci waxtaan wi ñu ngi ziyaare bu baax alxalifatul am li tariqati al muridiya cheikh muhammadul muntaqa di ñaan sunu boroom mu dolli ko fay yàggal dolli ko ak wér mottali ay mébétam te defal ko mboolem kilifa yi diine ci dëkk bi ak ci réew mi ak ci àdduna yépp tomb bii ñu tànn nag muy al idda di lu mat waxtaane ngir lan daa bokk ci dund gi jamono ju nekk rekk ay jullitaŋ ci idda kon lu lu la ak ñun ci sunu dund lu mënta ñàkk la moo tax yittewoo njàngaleem lislaam ci bunt bi di ko leeral bokk ci far farata yi mënta ñàkk Euh, idda nag bu ko arab waxee baat bi li muy firi mooy ab lim konte benn ñaar ñett ni mu ñëwee ci alquran fa iddatum min ayaamin uqar ba yàlla di wax àtteey ki ramadaan fekk mu wéradi ba mënta woor wala fekk ko ci ay tukki yu ko may mu baña a woor na konte fan yooyu mu wéradi fan yooyu mu tukki bu koor gi jeexee mu fay leen kon baat bi ci arab loolu lay firi mooy ab lim istilaaxan bu ko sharia islaamiya waxee lan la ci jublu boroom xam-xami fiq ci madhabu imaam malik radiallahu wa anhum ajmain dañuy wax ne idda ab diir la boo xam ne sharia moo ko rëddal boppam muy ay fan yoo xam ne moom la soxna di toog ginnaaw bu tàqalikoo ak boroom këram tàqalikoo ak boroom këram da ko fase walla daa génn àdduna ñaar yooyu lu ci am rekk idda da ciy topp di farata nag di farata yoo xam ne alquran da cee wàcc aaya yu bari wax ci waaye ay xadiis it rot yonent bi sallallahu alayhi wa ñu laaj ko ci mu tontu waaye jàngale si joxe ci ay ndigal tere ci ay tere wér na ci xadiis soxna su tudd Furaya bintu Malik al Qudriya di mbokkum Abu Saïd al Qudri radiyallahu anhuma bi boroom këram génnee àdduna mu bëgg a kër gëm dëkkoon ñëw wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne ko déedéet umkusi fii baytiki xatta yabluxal kitaabu ajala saxal continuel dëkk ci kër googu nga dëkkoon bi sa boroom kër di génn àdduna ba sa àppub xidda di mat kon sunna mi ngi ñuy jàngal ne xidda lu war la ndigalal yonent bi alayhi salaatu wasalaam la waaye alquran it wàcc si lu bari niñ ko waxee ñu mën cee jàng lu mel ni wa axsul idda yàlla nee na nangeen di takk fani idda muy mat lim yi mu war a doon wattaqullaha rabbakum man cee jàng wala tazimu uqdata nikaaxi xatta yabluga alkitaaba ajala bu jigéen nekkee ci idda bu kenn waxtaan ak moom wala nga waxtaan ak kilifaam dogu ci fas ab sëy sa digg ak moom ba idda ja di mat yeneen aaya wal mutallaqaatu yatarabbasna bi anfusihinna salaasata quru wala walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaajan yatarabbasna bi anfusihinna arbaata ashhurin wa ashra aaya yii ak xadis biñ njëlbéene woon ak yeneen xadis yu bari ci tënk daf ñuy jàngal ne xidda farata la lu war la lu mënta ñàkk la du loo xam ne lislaam da koo bàyyee nit ki bu ko neexee def bu ko neexee bañ a def waaye dafa waral ci moom mu def ko ngir xidda day mbir moo xam ne boo génnoon diine dem ci ak nite nit ñi dañ ko soxlawoo ci seenu dund moo tax ca aljaahiliyatul ula njëkk lislaam daanañ iddawu ca nañ koy defe doone doonte nañ ko daan defe lu metti la lu ñaaw la ba lislaam ñëw jàngale ci ay àtte yu jub yu leer waaye ñii àttewu ba tey bu dee sunu réew mii nga xam ne dañuy àttewu ci yeneen àtte yuñ jëlee fudul lislaam du tee ñi ngi bàyyi xel xidda ci seen àtte di ko yaal di ko digle saa bu ëpp say tase wala borom kër faatu bàyyi soxna loolu dañ koy wax ngir ñu xam ne xedda dafa bokk ci dund gi doomu aadama ci boppam mooy ki ko soxla xedda nag daa bari ay njariñ dafa bari ay njariñ moo tax lislaam jàngale ko taxaw ci nim ci taxawee leeral ko bu baax bokk na ci ay njariñam dana sàmm askan yi watndiku loo askan yu jaxasoo xam nga jigéen bu dee sëy ba génn cib sëy borom këram faat na walla boroom këram fase na ko bu amoon sañ-sañu te saasa mu dugg ci beneen sëy ay doom danañu juddu duñu xam ci sëy bu njëkk bale lañ bàyyi ko walla ci sëy bu mujj bii loolu di jur ay askan yu jaxasoo yu lënt moo tax bokk na ci njariñal idda wattu gi muy wattu askan yi ba ak jaxasoo du ci am bokk na ci ay njariñam bu dee talaax raj'i la fase moo xam ne bunta fayli mi ngi taxaw ci diggante ñaar ñi ko seqoon bu soxna si jàppee idda muy fan yoo xam ne lislaam nee na ko bul génn kër gi toogal wax ak boroom kër gi ne ko bul ko génnee bàyyi ko ci kër gi ba iddaam mat waaye wax ak ñépp ne bu kenn labat wala nga jéem a xalaat denc soxna si ngir daa nekk ci idda loolu ana njariñ li mooy fasema bu dee njuumte lu gaaroon la balaa idda ji di jeex danañ gindaliku danañ juboowaat ñoom ñaar boroom kër gi mën a jëlaat soxnaam ci lu àndul ak benn jafe-jafe loolu la borom bi di wax ca suuratu talaaq laalla allaha yuxdisu bada dalika amra bu soxna si jàppee adda diir bu muy toog balaa adda jee mat amaana mën naa am yàlla dana sos la neen mën naa am dana sos ak juboo seen diggante ba sëy ba mën a continuer bu dee adda ci ki génn àdduna soxnaam war a addawu loolu it njariñ da nekk mooy soxna si mën a feeñal feeñal cofeel ak kóllëre gi nga xam ne am na ko ci borom kër gi jiitu ak war ma ji am ci moom ba mën a toog di muñandiku diir bu toll ni bi mu war a toog du génn ci lu dul lu mënta ñàkk du waxaale lu jëm ci ab sëy kon xidda xikma bi tax lislaam yoonal ko mooy njariñul jaam yi da cee nekk xidda nag dafa am yu koy sabab dafa am asbaab ay mbir yu koy sabab am charte yuy taxit mu war du càggee ne fu sëy amee fase am xidda war naa am dafa am charte yi dajee xidda door a war charte yooyu bi ci njëkk mooy at-talaaq saa bu fase amee alquran dafa wax ne wal mutallaqaatu yatarabasna bi anfusihinna salaasata quru jigéen ñi doon sëy ñu fase leen nañu toog jàpp xidda nañu muñandiku salaasata quru ñetti laab waaye jigéen jooju doon sëy ñu fase ko mu war a jàpp xedda ñetti làpp charte yi ñuy bëgg wax di ñeenti charte dañoo war a daje <clears throat> faw ñeenti charte yi dajee xedda door koo war charte bu njëkk bi mooy moog boroom këram wéet nañ bu dee sëy buñ takk fase am te ñoom ñaar gisewuñu wala bañ gisee wéetuñu sëy bu mel noonu fase moomu xedda du ca am loolu yàllaa ko wax ci alquran yaa ayuha alladina amanu ida nakaxtumu almuminaati summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuuhunna fama lakum alayhinna min iddatin taatadduunaha yéen jullit yu góor bu ngeen dencee ay soxna ay jullit ni yéen waaye ngeen fase leen njëkk ngeen di wéet ak ñoom soxna yaa amee luñ leen benn idda kon pour idda war charte bu njëkk baa ngi noonu mooy ñaar ñi seqoon séy bi mas nañoo wéet boroom xam-xam yi nag dañuy jàngale ci bunt bi di wax ne man axlaqa baaban wa arqa sitran faqad wajaba sadaq wal idda bépp sëy buñ takk ñaari way dencante yi bokk nañ dugg ci ab néeg tëj buntu walla ñu wàccee ay rideau diir boo xam ne jote xaj na fa sëy boobu bu tasee xedd day war waaye joxe can gu matit day war ci sëy boobu ñaareelu charte bi ñaareelu charte bi mooy soxna si na doon koo xam ne toll na ci at yu mën a sëyee xam nga lislaam tënkul maye jigéen ne faw mu am mi at ñu door koo mën a maye léeg-léeg ñu maye koo xam ne tollugul fu mu war a sëyee ku mel noonu buñ ko fasee idda du ko war loolu boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ñetteelu charte bi mooy boroom kër gi it na doon ko mën a jotee ak soxna sa boroom kër ga na doon baalix na doon koo xam ne ku mat mu kallaf la bu doon ko ndawee lool nga xam ne ëmb mënta bàyyeekoo ci moom ku mel noonu bu fasee soxnaam soxna soosu du war ci moom mooy daw waaye na doon ko mën a jote it koo xam ne yàllaa ko bindee amul cërub góor wala am na ak wéradi ba cërub góor bi woon ci moom nekkutu fa dem na ak lépp lu niroog loolu ku mel noonu bu fasee soxna soxna soosu du jàpp idda kon asbaabul idda li ci njëkk mi ngi noonu mooy at talaaq waaye bu fase amee nag dañuy xool charte yi daje soxna si door a jàpp xedda benn bu ci manqué rek muy ñoom ñaar mësuñoo wéet walla soxna sa jotagul a sëy wala boroom kër ga matagul mu kalaf wala boroom kër ga mënta jote xedd du war ci fase mu mel noonu bu dee takk nañ sëy fase am na ñoom ñaar wéet nañ wéet goo xam ne sëy xaj na ca waaye bañ leen laajee nee nañ jotewuñ dara loola du teye ñu xeddawu comme wéet nañ rek man axlaqa baaban aw arqa sitran faqad wajaba sadaaqu wal idda faw idda day am ànd ak loolu ñu saxalal seen bopp ne jotewuñ at yi ci war a topp dañ leen koy toppee qaacida la bu siiw boroom xam-xam yi di ci dox mooy yuxadul mukallafu bi iqraarihi mukallaf lépp lu mu saxalal boppam rek lu ca war ci àtte àtte ya day tegu ci kawam kon buñ takkoon sëy bi ñoom ñaar wéet nañ waaye nee nañ mësuñoo jote boroom kër gi wax gi mu wax ne mësta jotee soxna si dana tax du mën a fayli ndax ku fase xabla duxul amatoo xaq ci fayli soxna si it wax gi mu wax ak soxna si dana tax lam wa lañ ko ameloon ci can buñ ko joxee genn wàll ga doy na ndax moo dàq ne jotewul ak waa ji ba tey alquran bi muy jàngale aay biñ jàng léegi ida nakaxtumul muminaat muminaat way gëm yàlla yu jigéen mu mel ni kon danañ laaj comme lislaam may na jullit mu denc soxna soo xam ne ab yahudiya la wala ab nasraaniya ndax soxna soosu daa war a soxna soo xam ne yahudiya la wala nasraaniya la boroom këram di ab jullit day war ci moom mu edda saa bu boroom këram faatoo wala boroom këram fase ko bal bu boroom këram doonoon ab yahudi ni moom wala ab nasraani tàggoo ak moom ab jullit bëgg koo denc day war ci moom mu jàpp xedda ba xedda jamat jullit bi door koo mën a denc kon ab yahudiya ab nasraaniya seen sëy ñoom ñaar buñ ci tuddab jullit moo xam jullit la doon sëyal mu fase ko wala mu faatu bàyyi ko fi wala génn na génn na ci sëy ak kudul jullit ab jullit bëgg koo jël day jàpp idda sëy door a mën a taxawaat kon al muminaat imaan googu faw ñu yaatal ko delloo ko ci ngëmu jullit ñeeg ahlul kitaab yépp walla mu bañ a am mafhum borom bi li mu jubla wax rek mooy soxna si yi nga xam ne borom këram daa doon ab jullit moom borom këram fase na ko day war ci moom mu jàpp idda asbaabul idda benn ngi noonu muy at-talaaq kiñ fase jullit la wala yahudiya la wala nasraaniya la képp ku lislaam may jullit mu takk ko rek kooku bu génnee cib sëy day war ci moom mu iddawu te bu fekkee ka ko takkoon ab yahudi la wala ab nasraani la waaye beneen jullit ko bëgg a takk ginnaawam du ko mën a takk lu dul daa iddaw ñaareel bi ci sabab idda mooy sëy boo xam dañ koo takk te charte yi tax sëy wér dajewul muy nikaaxun faasit waaye nag yéex nañ koo yëg ba ñoom ñaari wéet nañ jote nañ lislaam tas sëy boobu soxna si dafa war a jàpp idda as assababu saani min asbaabil idda mooy fasqu nikaaxil fasid baada duxul bépp sëy boo xam ne sëy bu yàqu la yéex nañ koo àtte ba jotee nañ ñoom ñaar ñu door a àtte tribunal tas sëy ba soxna sa day war ci moom mu jàpp idda doonte yàqu gu tar la sëy yu yàqu yi da ca am yoo xam ne yàqu gu woyof la buñ ko yéexee yëg bañ jotee sax wala mu yàgg sëy ba day continuer am yu yàqu-yàqu gu tar lu mu yàgg-yàgg ak lu mën a xew lislaam day dindi sëy booba ndax baaxul ci genn anam bu mën a doon ci ñaar yi soxna sa dana jàpp idda gannaaw ba ñu tasee sëy ba mu des rek sëy bu yàqu-yàqu goo xam ne moom sëyu maatay la kii takk masalan daa takk maxramam te xam na ko xam na ne lii muy def du lu baax du lu dagan loolu moom kenn mënu ko déeb sëy zina la moo tax lu mel noonu buñ ko tasee istibra fay taxaw laablu bu ko waxtu wi mayee danañ ñëw ci àttey istibra waaye xidda du ca war ñetteelu sabab ñetteelu sabab ci sabab xidda ginnaaw at talaaq gannaaw fasqu nikaaxil fasid mooy mawtu zawj boroom kër gu génn àdduna bàyyi fi soxna day war ci soxna si mu xiddawu waxoon nañ léegi bu dee fase la te ñoom ñaari wéetuñ soxna si du iddawu waaye bu dee boroom kër gi dafa faatu te weetul ak soxnaam soxna si dana jàpp idda kon saa bu kër borom kër faatoo bàyyi fi soxna moo xam jote woon nag soxna si wala jotewul ak moom soxna soosu daa war a jàpp idda ngir alquran moo wax ne walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabasna bi na arbaata ashhurin wa ashra waxin wu matale la woo xam ne al madxulu biha wa xayrul madxuli biha ñëpp ñoo ci yem sëy bu wér la bu dee sëy bu wér boroom kër faatu bàyyi fi soxna soxna si daa war a jàpp idda bu dee muy sëy bu yàqu la it boroom kër gi faatu njëkk ñuy àtte di wéyal wala ñuy tas sëy soxna si day jàpp idda soxna si boroom këram génn àdduna moom it bu dee jullit la wala kitaabi ya la ñoo ci yem day jàpp idda kon mu leer ñetteelu sabab ci waral xidda saabu borom kër faatoo bàyyi fi soxna dootuñu xool njëkk muy faatu jote naag soxna si wala jotewuñ lu ca mën a xew soxna si dana xiddawu duñu xool soxna si mag la wala ndaw la mut mutlaxan day xiddawu boroom kër gi mag la wala ndaw la soxna si day xiddawu soxna si jullit la wala kitaabiya la day xiddawu loolu moo tàqale ci tomb bi iddatul wafaat ak iddatu talaax ñi ngi la doon wax léegi bu dee talaax la te soxna sa ndawe lool ba mënta sëy wala boroom kër ga matagul mu kallaf wala mënta jotee foofa xedd amutoon fa waaye bu dee ci faatu moom soxna si lu mu nekk nekk daw boroom kër gi faatu lu mu nekkoon nekkoon ndaw soxna si wéet naag waaj yi walla weetuñu jullit la wala du jullit daa war a jàpp xedda ñeenteelu sabab bi mooy faqdu zawj alxaayib boroom kër gu dem waa këram ak soxnaam amatuñ ay xabaaram mënatuñoo jokkoo ak moom déggatuñu ci moom dara xamuñ ci lu mu nekk muy li ñu tuddee almafquud kooku am na àpp yoo xam ne buñ ko toogee ba mu mat amuñ benn xabaar ci moom dañ koy jàppee comme ku faatu soxna si mu fa bàyyi woon wala soxna yi mu fi bàyyi woon war a war a jàpp idda kon ci gàttal ñeent yi mooy sabab idda mooy fase la wala tas ab sëy la ngir nañ ko takkee baaxul wala boroom kër gu faatu bàyyi fi soxna wala borom kër gu dem ay xabaaram dog ñu xaar diir ñu war a xaar amuñ ci moom benn xabaar ñu jàppee ko comme ku faatu soxnaam war a xeddawu lu nekk ci ñeent yi rek dana waral idda soxna yii xeddawu nag jigéen ñi bokkuñu nu ñuy iddawoo ku ne ak na mi jàppee iddaam ci ni ko alquran jàngale ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallama leeralee loolu moo tax xidda am ay xeet bi ci njëkk mooy iddatul xaamil soxna si moo xam boroom këram mafquud la comme niñ ko waxee léegi wala boroom këram daa faatu wala boroom këram da koo fase wala sax dañ koo takkoon ci takkin wu baaxul tas nañ sëy bi waaye moom tollu na diggante kooku xiddaam mooy day toog ba ba muy am doom moo tax xidda jooju mën naa yàgg mën naa bañ a yàgg boroom kër gi mën na koo fase tey tey ngoon wala suba mu am doom xiddaam jeex na waaye mën na koo fase tey fekk ci njëlbeenu ëmb la toll toog ay weer yu limu door a am doom xiddaam door a jeex loolu it alquran moo ko yaxal ca wa ulaatul axmaali ajaluhunna an yadana xamlahun ulaatul axmaal bayiwul benn ëmb moo tax fii amul soxna si gor laag jaam la jullit la yahudiya wala nasraaniya la lu mën a xew borom kër gi dafa faatu wala da koo fase wala daa doon mafquut wala sëy buñ firi la ku ëmb ku mën a doon saxit da mooy boo amee doom saxit da jeex waaye am doom gi it bu fekkee dafa ëmboon ñaari doom wala ñett juddug benn doom du jeexal xedda fow ëmb ba jeex an yadaana xamlahunna lañu ëmboon lépp danañ ko sippi seen xedda door a mat moo tax pour bu dee xeddaay kii tollu diggante dafa am ñaari charte yuy tax xeddaam jeex benn bi mooy commencé na am doom rekk mën nañ koo may keneen déedéet faw faw sippi ga am ga doom day mat bu dee ëmboon lu ëpp benn doom it faw doom yépp juddu ba jeex ñaareel bi mooy na doon sëy boo xam ne sëy bu wér la walla ba mu doonee sëy bu yàqu it yàqu goo xam ne bu doom sotu woon danañ ko nangul ne ci sëy bii la juddoo mu yéeg ci askanu baayam kooku mooy jeexal iddaam ca ba mu amee doom waaye jigéen mën naa am boroom kër ëmb ëmb boo xam ne ci njaalo la jóge ci biir ëmb bi boroom këram fase ko kooku am doom du jeexal xiddaam am doom du jeexal xiddaam kooku day am doom ba noppi jàppee xedda ñetti laab moo tax xedda ju yàgg la mën a doon ndax dana am doom tàmbali di nàmpal te xaaliban jigéen buy nàmpal du gis baax waaye lu mu yéex a yéex a gis baax dana toog ba gis baax laab laab ba muy ñetti laab xiddaam di door mat naka noonu euh, bu fekkee soxna si yi nga xam ne moo ëmb boroom këram fasiwu ko waaye dafa faatu maanaam jigéen ju doon sëy ci misaal zina zina mooy njaalo bam sax na njaalo na jële na ëmb ci njaaloo gi boroom këram daal di faatu moom it dañuy xool ñaari xadd yi bu ci gën a yàgg loolu lañ xeddawoo kooku am doom jeexulut xeddaam bu amee doom te matul ñeenti weer fukki fan day continuer xaar ñeenti weer ak fukki fan bu ñeenti weer fukki fan matee te amul doom day continuer ba am doom ab xadul ajalay ni wala aqsal ajalay ni mooy doon xeddaam kon ci ëmb boo xam ne ëmb bu xaraam la doom ja bu juddoo duñ ko askanee baay jii doon sëy ak soxna si foofu ëmb boobu ab jur ko du tax a jeexal xedda kon benn xeet a ngi doon ci xeeti xedda mooy iddatul xaamil ñaareel bi mooy iddatul murtaabati fi xaml soxna soo xam ne boroom këram fase na ko walla faatu na wala borom këram nekk na ab mafquut bañ àtte ba jàpp ne mafquut la mu toll mu jàpp idda waaye nag moom day sikk ndax daa ëmb walla ëmbul sikk sàkk fuqahaa yi dañ ko def ñaari xaaj dafa am riibatun xafiifa sikk sàkk gu woyof sikk sàkk goo xam ne mi ngi sababoo ci waxtu moom daan gis baax jot na te gisul baax xëy na daa toll diggante moo tax gisul baax mën naa amit leneen la wallaahu aalam kooku xiddaam mën naa mat fukki weer ak ñaar muy at mu mat ndax day toog juróom-ñeenti weer bu toogee juróom-ñeenti weer di gisul baax mu door a jàpp xidda ñetti weer juróom-ñeent ak ñett mooy fukki weer ak ñaar loolu mooy sikki sàkk boo xam ne bu woyof la waaye bu dee sikki sàkk bu tar masalan am na lu yëngu ci bu biiram mu jàpp ne moom daa daa ëmb wala mi ngi gis ay jeexit ak i màndarga yuy tegtale ëmb kooku moom xidda mën naa dem ba ñeent walla juróomi at mën naa dem ba ñeent wala juróomi muy aqsa muddatil xam la loolu mooy sikki sàkk boo xam ne gu tar la moo xam boroom kër gi da koo fase wala borom këram daa génn àdduna mi ngi yëg biiram di soppeeku mi ngi yëg ci yaramam ay soppeeku wala sax dem na kër docteur ñu seet ko ba xamal ko ne da ngaa diggante waaye amul doom amul doom continuer xaal boobu dana toog ñeenti at yu mat ci waxi lenn ci fuxaw yi wala juróomi at yu mat bu amul dara nag am door a door a yem foofu loolu mooy sikki sàkk goo xam ne sikki sàkk gu diis la kon xeeti idda yi e, benn ngi noonu muy iddatul xaamil ñaareel baa ngi nii muy iddatul murtaabati fil xaml ñetteel bi mooy iddatu xayril xaamil koo xam ne daa war a xeddawu te moom tollul diggante kooku nag ay ay ay passion la am na koo xam ne bu dee daa borom këram dafa faatu borom këram dafa faatu te fekk moom tollul diggante lan lay xeddawu mooy ñeenti weer ak fukki fan ba jaam di am daanañ ca dolli bu dee jaam ñaari weer ak juróomi fan muy genn wàllu xedday asgor kon daal jigéen ji nga xam ne borom këram génn na àdduna te fekk nekkul cib ëmb lan lay addawu mooy arbaatu ashurin wa ashra ñeenti weer ak fukki fan bu dee du ëmb bi bu dee du ëmb wala ba ñoo jàll loolu sax ñu leeral waaw ah, jigéen ji nga xam ne borom këram dafa faatu mu war a jàpp xedda ñeenti weer ak fukki fan comme ni ko ñu bari xame nañu bàyyi xel ne bu àndeek di sikki sàkk ëmb na wala ëmbul bu ñeenti weer ak fukki fan jeexee lan mooy xew mooy tëññu gi mu nekkoon ñaawlu ga moom jeex na waaye xedda ji day continuer xedda ji day continuer jëm bu demee comme gisul baax ci misaal borom kër gi faatu na moom war naa mën a gis baax gisul deret benn yoon ba ñeenti weer ak fukki fan mat kooku day continuer xiddaam ba ba muy am juróom-ñeenti weer gisul deret foofu la xiddaam door a bu amee juróom-ñeenti weer gisul deret foofu la xiddaam di door a yem bu doon fase la mu war a xiddawu ñetti laab deret ñëwul moom da doon xaar juróom-ñeenti weer bu matee mu yokku ca ñetti weer comme ni ñu ko waxee woon muy fukki weer ak ñaar di benn at naka noonu ci xiddatu xayril xaamil al mutawafa anha zawjuha mi ngi noonu ñaareel bi mooy al mutallaqatu lati taxiit ku ñu fase la koo xam ne ay atam fi mu toll war naa gis baax du ko ndawee ba tollagul fu muy gisee baax du ko magee ba weesu fu muy gisee baax kon moom mu mutallaqa mutallaqatun xaayit la kooku xeddaam ni ko alquran jàngalee mooy ñetti laab salaasatu quru borom aleykum salaam wa rahmatullah borom bi wax ci alquran wal mutallaqaatu yatarabasna bi anfusihinna salaasatu quru salaasatu quru ci mazhabu imaam malik wala ci mazhabu ñoom dañ koy firee ñetti laab yeneen mazahib yi ak borom xam-xam yu bari di ko fire ñetti mbërëg waaye lii wér te wér rek mooy salaasatu quru ñetti laab la ah, baat bi day mushtarak luqa arabiya bu ñu waxee alquru day firi al tuxuru laab waaye di firi alxaydatu muy mbërëg loolu tax fuqaaw yi am ñu ko firee ñetti laab ñii firee ko gis baax ñetti yoon waaye ñi xóotal ci xam-xamu luqa dañuy wax ne comme alquran waxul aqra xuru la wax kon ñetti laab la war a firi xuru day firi xaydu di firi tuxuru waaye bu dee firi xaydu aqra lañ koy jamoo ba muy firi tuxru lañ koy jamoo xuru te li ñëw ci alquran ñëw ci xadis yëpp mooy ay xuru kon ñetti laa moom la jigéen di addawu bu dee borom këram da koo fase beneen bi mooy kooku ñu fase mu war a gis baax ba noppi gisul baax kooku xeddaam day xaar juróom-ñeenti weer gisul baax benn yoon mu door a jàpp xedda ñetti weer loolu mooy yóbbu xeddaam ba ci at mu mat waaye nag bu doon xaar juróom-ñeenti weer yi matagul deret baax dikkal ko jëratul naan damay continuer xaar juróom-ñeenti weer gis na baax rek na xaar laab gisaat baax laabaat ba ñetti laabam di mat loola mooy doon xeddaam kon beneen xeetu xeddaa ngi nii muy iddatul mutallaqati allati taaqara xayduha li gayri sababil irda waaw ah, parce que kii nàmpal bu dee nàmpal gee tax mbërëgam yéex a ñëw moom xiddaama nar a yàgg waaye dana xaar ba ñetti laab di ko dikkal xiddaam di door a jeex bu dee beneen sabab bu bokkul ak nàmpal moo tee mbërëgam ñëw mën naa am feebar la wala xamut lu ko waral kooku xiddaam gannaaw bu toogee juróom-ñeenti weer continuer ci ñàkk gis baax ci lay jàpp da ñetti weer muy benn at bu mat naka noonu beneen xeetu xedda muy iddatul mustahaada koo xam ne daa wéradi deret di génn ci moom jamono ju nekk te xàmmewul dammul xaydi ak damm boo xam ne istihaada rekk la bu ko xàmmee woon moo ki amul istihaada ñoo bokki àtte day xaar ñetti làpp bu ko xàmmee woon bu dee xàmmewu ko nag na toog na toog juróom-ñeenti weer doora a jàpp idda ñetti weer bu toogee juróom-ñeenti weer continué ci xaal boobu jàpp idda ñetti weer muy benn at bu mat waaye bu doon faatu la fekk moom mu am damul istihaada juy génn xàmmewut ko xaydu faw mu toog juróom-ñeenti weer comme nañ ko waxee ndax bu toogee ñeenti weer ak fukki fan te yëgul benn yoon ne xaydu génn na ci moom lii génn yépp istiaada la dafa war a continuer xaar juróom-ñeenti weer wax nañ ko ci gannaaw mu des iddaay soxna soo xam ne moom daa ndawe ba tolloogul fu mu war a gisee deret wala mage na ba weesu naa gis deret moom it borom bee ko wàccee ci alquran ca suuratu talaaq wallaa'i ya'isna min almaxiidi min nisaaikum mooy jigéen ñi mage ba naagu nañ dootuñu gis mbërëg inir tabtum inir tabtum fii li muy firi mooy bu ñuy sikki sàkk ndax ëmb nañ wala ëmbuñu wala inir tabtum bu ngeen sikki sàkk ci àtte yi xamu leen àtte bi lan la loolu lay firi fii fa iddatuhunna salaasatu ashhur dañuy iddawu ñetti weer mu dolli ca wallaa i lam yaxit na muy jigéen ju ndaw joo xam ne tollugul fu muy gisee baax moom it kooku xiddaam moo ka mage ba weesu gis baax ñoo bokk àtte di ñetti weer léegi nag bu gisee xeetu xidda yi moo xam kii xidda woo ci xaar am doom kii xidda woo xaar ñeenti weer ak fukki fan ngir borom këram a génn àdduna kii xidda woo ñetti laab wala kii nekk ci ak wéradi wala yeneen ngànt ba xiddaam mën a dem fukki wer ak ñaar wala sax mu ànd ak sikk sàkk gu tar ba xiddaam mën a dem ñeent wala juróomi at xeeti xidd yi yépp lu ci nekk day ànd ak ay aasaar ay jeexit ak ay ndigal yoo xam ne lislaam moo ko jëmee ci kii xiddaw ay tere yu mu ko tere moom lañu ñu tuddee al aasaar al mutaratibatu ala idda ni ko alquran waxee wala tanzimu uqdata nikaax kon asaar yi ci toftalu bi ci njëkk mooy xurmatu nikaaxi wal xidba jigéen a ngi ci idda yaa xam iddatu talaaq la wala iddatul wafaat la daganul kenn di ko fas ab sëy daganul it kenn di ko labat di waxtaan ak moom ci bu sa idda jeexee ma denc la wala di waxtaan ak ay kilifaam bu xiddaam jeexee ñu may ko diw loolu yépp alxuraan da koo tere lam may rek mooy gaaral wax wax joo xam ne mën nañ caa déggee ne bëgg nga ko bu xiddaam jeexee nga dem ñaani ko waaye dëxal ko ne bu sa xidda jeexee naa la denc wala dëxalanteeg ay kilifaam rawat ne ko di ko di ko denc ci biir xidda loolu alxuraan da ko tere tere gu leer ba ku ko def sax nag yeneen at danañ ca topp yoo xam ne danañ ca ñëw ca kanam incha allah ànd ak loolu yëpp nag lii mi ngi am léeg-léeg nit génn àdduna waa kër ga kilifa ya waxtaanee soxna yi bu seen idda jeexee soxnaam si nañ ko jox diw waxtaan jaag mbokki soxna sa wala soxna sa ci boppam ñu juboo ca daanaka danañ ko def ca fan yu njëkk ya te loolu lu xaraam la loo xam ne borom bi da koo tere ci alquran yonent bi sallallahu alayhi wasallam gën koo leeral tere ko ci ay xadis yoo xam ne yu sax la yu wér la kon nañ bàyyi xel ne képp kuñ la ne mi ngi ci xidda moo xam xiddaay fase la wala xiddaay borom këram dafa faatu la kooku kenn sañu koo denc kenn sañu koo labatit wala nga dem ci ay kilifaam di wax ak ñoom ci bu xidda ji dana ko denc beneen asar ci asaar yi ànd ak xidda moom ci xiddatul wafaat lay am jigéen ji borom këram génn àdduna mu war a toog ñeenti weer ak fukki fan waaye maa ngi fàttaliwaat du yem rek ci ñeenti weer ak fukki fan ci jigéen ñépp lu bari ci jigéen ñi bu ñu amee ñeenti weer ak fukki fan seen xidda jeex na waaye jigéen ji borom këram génn àdduna mu toog ñeenti weer ak fukki fan diir bii gisul baax benn yoon te nekkul ku ndawe wala mu magee ba du gis baax kooku daa war a continuer ba juróom-ñeenti weer fa la xiddaam di jeexee bu àndee sikk sàkk gu am doole gi ñu waxoon mi ngi yëg ci biiram luy niroog ëmb na toog ak sa muddatil xaml ci la xiddaam di door a mate aqsa muddatil xaml fuqahaw yi dañ cee wute ndax ñeenti at la walla juróomi at la ñeenti at wala juróomi at léegi ci xiddatul wafaat nag day ànd ak lii wala fi di tuddee teñju wala ñaawlu maanaam jigéen ji ci nekk yonent bi sallallahu alayhi ci xadis bu wér xadisu sayyidatuna ummu salama dafa wax ne al mutawaffa anha laa talbasu al min asiyaab wala al mumashaqa wala al xulyi wala taktaxil kon jigéen ji nekk ci iddaay boroom këram génn na àdduna lislaam da koo tere lépp lu jëm ci waaj di sol yëre yu taaru walla luy yokk ab taaram ci yaramam moo xam xeeti parfon la walla xeeti diw yaram yu ànd ak xet gu neex walla yu muy diw ci karaw kawaram ngir yokkee ko taar walla fuddën walla tusngal ay bëtam yooyu yëpp lislaam da koy tere ngir daa nekk ci ñaawlu naka noonu di di tuxu di jóge fa mu dëkkoon di dem faneen ci lu dul ngànt muy tukki di yendoo ko fanaan ci lu dul ngànt loolu yëpp lislaam da koo tere jigéen ji nga xam ne day iddawu iddatul wafaat bu amee soxla su muy doxee mën na koo doxee ci bëccëg bi waaye di fanaan ci këram na koy doxee ci bëccëg bi waaye bu fanaan jotee nay fanaani ca kër ga kër gi mu dëkkoon ba borom këram génn àdduna fee ngànt amul na continuer xeddoo foofa loolu mooy ndigalul islaam ci moom kon du mën a bàyyi kër ga di dëkki faneen njëlbeenu nañ léegi xadis boo xam ne furayatu bintu malik ibnu sinaan ba mu laajee yonantu borom këram génn àdduna daa bëgg a dem ca ay mbokkam ca kër yi way juram xeddoo fa yonantu daf ne ko déedéet umkusi fii baytiki xatta yabluga alkitaabu ajala kon euh, iddatul wafaat bokk na ci lii lislaam waral ci jigéen ji ci nekk mooy mu toog bu ko fekkoon muy liggéey liggéey boo xam ne amul ku ko ca mën a wuutu te doonut lu mën a xaarit du ko yàqal liggéeyam bu waree xëy wala mu war a gont ci mën naa dem liggéey waaye nay fanaan ci kër gi bu amee tukki mu mënta ñàkk ni ki day faju ji wala soxla su tar soo xam ne keneen mënu ko cee wuutu mën na koo doxi te ñëw tukki yi nga xam ne nag aadala ak maslaa lu mel ni dem ci xew yee yu mën a ñàkk yépp moom na ko wattandiku te toog jàpp idda bal jigéen ji bu nekkoon ci tukki boroom këram génn àdduna day war ci moom mu wàññeeku bàyyi tukki moomu dem toog jàpp xidda ba xiddaam mat Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Ousmane euh, ibn Affan radiyallahu anhu ku mu ci ñoom ñaar àtte na ay soxna yoo xam ne jóg nañ di xaj yi nekk ca yoonu mag seen borom këram tàgge dikkal leen seen borom kër yu génn àdduna mu digal leen ñu wàññeeku dellu ca seen kër borom kër ya jàppe seen idda ndax day jaamu yàlla goo xam ne alquran da cee wàcc yonentu jàngale ko ba mu leer bokk ci farata yi bokk ci yi nga xam ne mënta ñàkk kon ñu xamit ne jigéen ji boroom këram génn àdduna liñ ko tere jëm ci luy yokk ab taaram waxuñu waxuñ lu mel ni jokku kawar wala ay xeetal yooyu moom dafa xaraamoon mës dagan ci moom yam daan yokkee taaram tem dagan yooyu lañ ko tere bépp yére boo xam ne buy buy yokku taar la wala diw guy ànd ak xet gu neex ak luy niroog loolu na koy wat ndiku kem kàttanam rawat na tus tusngal ay bëtam wala fuddën ay loxoom wala ay tànkam yooyu la ko lislaam tere li ci des nag ci idda eh, nit ñi dugal nañ ci ay aada dugal ci ay bidaa yoo xam ne day metti lool ci ku koy def te yàlla warlut ko ci moom bal yenn yi daa xaraam yenn yi xaw na koo génnee ci diine te yëgu ko bokk na ci aada yi yenn yi jigéen day iddawu ñu gëmloo ko ne moom du bokk ak nit ñi waxtu julli tisbaar balaa jot dana julli balaa timis di jot dana julli balaa tàkkusaan jot mu julli loolu daanaka génn ci lislaam la gën a jege sàkkal sa bopp yeneen jaamu yàlla yeneen waxtu yu bokkul ak yi yàlla jàngale yonentu jàngale ko di jaamu yàlla ci leneen lu bokkul ak li la sa diine rëdduloon moo tax loolu kilifa yi ci biir kër yi ak soxna yeeg ñi leen koy digal nañu ragal yàlla xam ne ña ngay màbbu seen diine te jubluwuñ ko te mën naa am it yëguñ ko waaye lu lu doy la lu jéggi dayo la yeneen yiñ leen di aaye ci bokk ak nit ñeeg wala yiñ leen di téeloo ak yiñ leen di defloo bés yiñ leen di tànnal ne ci lañuy sangook ci lañuy ñuy fóot ak yooyu yëpp lislaam yoonalut ci dara ay aada yoo xam ne nit ñee ko teg seen bopp moo tax yooyu yëpp dafa bokk ci yi war a wat ndi ko yem fi ñu yàlla ak yonent bi yemloo beneen asar ci asaar yi ànd ak xidda mooy asukna jigéen ji bu dee Sénégal la bokk na ci aada yi aada yi tasaaroo lool te war fay jóge mooy bu ab sëy jeexee fu fase ame soxna sa ci saasa day génn kër ga dem te yàlla wax ak soxna yi ne toog leen bu leen génn kër yi wax ak boroom kër yi ne leen bu leen leen génnee illaa an yatiina bi faaxishatin mubayyina kon jigéen juy sëy boroom këram fase na ko dafa am xàq mu toog continuer dëkk fa mu dëkkoon di dund ci alali boroom këram mu di ko dundale la mu ko doon dundalee bu feebaree tax mu war koo faj lépp loo xam ne xàq la ju ko boroom këram ameloon daa continuer amel ko ko ba tey bu dee talaaq raja'i walla bu dee talaax bàyyi nit ci dëkkal ko dundal ko la xaraam seen diggante rek mooy sañu duñoo wéet di jote ndax nekk ngir fase am na ba ba mu koy fayli wala xet daji jeex mu dem sëyiwaat faneen kon nañu xam ne jigéen bu nekkee ci xedda dañ koo fase talaax rajai la muy fase muñ mën a fayli wala talaax baa in la fase moo xam ne fayli mënu tee am bu ñu bëggantee faw ñu delluwaat ca fa ñuy fase sëy ba fasaat ko soxna si daa war a continuer dëkk ci kër borom kër gi bu mu génn bu génnee ci coobareem mi ngi mooy yàlla boroomam boroom kër gi bu ko génnee mi ngi mooy yàlla boroomam bu dee iddatul wafaat it iddatul wafaat boroom kër gi faatu te kër gi këram la moo xam moo ko moom wala même bu ko moomul luñ ko abaloon la te may nañ ay soxnaam ñu continuer jàppee fi seen xedda ba mat walla lum luye woon la te bay fi faye luyaatul ñeenti wer ak fukki fan yañ war a iddawu soxna yooyu it dañoo war a toog matal seen idda ci kër borom kër googu waaye waruñoo génn mukk di ñibbi ci seen këri baay ak ci seen këri càmmeñ xadiisu Furayha bintu Malik moom lim doon tàggu yonantu mooy boroom këram faatu na daanaka fa mu dëkkoon bu fa continuer bëgg a dëkk dana xaw a métti ci moom la koy noppal mooy mu dellu ca kër ay mbokkam ca njëlbeenu xadis bi yoontu la ne ko waaw demal ba mu jóg di dem mu woowaat ko mu ñëw mu ne ko déedéet um ku si fii baytiki xataa yabluxal kitaabu ajla bul génn kër ga continuel nga toog ba àppab xedda di di mat kon assuq naa xaq la li kulli muctadatin minal wafaat aw min a talaaq xatta sëy bu yàqu ba sharia islaamiya tas ko bañ ko tasee it du tee soxna sa daa war a continuer dëkk ci kër borom kër ga ngir bi borom bi wax laa tuxrijuhunna min buyutihinna wala yaxrujuna illa an yaatiina bi faaxishatin mubayyina loolu day wax ju matale yemul ci talaaq rek waaye day làmboo iddatul wafaat di làmboo iddatu nikaax faasit boo xam ne dañ koo fasxu baada duxuul bu ngant amee nag bu ngant amee comme soxna si foofa bu fa bëggee dëkk amul sécurité ci yaramam wala ci alalam wala sax wóorul ci ay jikkoom leneen mën na koo yàq wala mu soppi ko wala kër ga moo am ngànt ba kenn mëntu faa dëkk kon na tuxu waaye fa mu wut na jàppee foofa comme kër gu njëkk ga bala mu faa jógee na doon ngant lu bir wala mu toog fa ba iddaam di mat ñeenteelu asar bi ci asaar yi ànd ak idda feeñ na ci biir wax ji te mooy jigéen buy iddawu dafa war a sax ci kër gi fii nag iddatul wafaat moo tax ñuy wax dafa war ci moom mu toog balaa muy génn di tukki wala muy yendu àll na doon soxla su tar waaye fanaan moom rawat na na koy wattandiku euh, ngir dafa war a continuer dëkk di fanaan ci kër gi nga xam ne fi lay jàppee xidda ba xiddaam di mat juróomeelu asar bi ci asaar yi mooy an nafaqa bu dee mutallaqatu talaaq rajax yi mutallaqatu talaax rajax yi moom daa war a dund ci alali boroom këram dépasse yam ko ameloon la ko amel ba tey ba mu ko faseegul njël la mu ko daan yettal ba mu ko faseegul moom la war a continuer ba xiddaam di mat kon kenn du fase soxna rek yaakaar ne ab dundam sa yoon nekkutu ci bu dee talaaq raj'i la kooku soxna la ba tey bu yàlla dogaloon nga faatu te xiddaam sax dalaa war a donn bu faatoon moom it te xiddaam nga war koo donn kon sa soxna la lenn moo xaraam seen diggante mooy jote wéet ni góor di wéeteeg soxnaam waaye bu dul loolu xàq ya doxoon seen diggante dara dañu gutti naka noonu bu dee talaaq baa in la te soxna si tollu diggante wala sax bay nuuna kubra muy bat te soxna si ma nga tollu diggante alquran ne na wa in kunna ulaati xamlin fa anfiqu alayhinna xatta yadana xamlahun bu dee dañoo tollu diggante fase am na ak lu fase ma tartar doonte ñetti fase la ak nu mu mën a demee rek boroom kër gi moo war a continuer di dundal soxna sa ba ba muy mucc moom moo war a dundal soxna sa euh, ci àttay xedda it duñ mën a wax xedda te indiwuñ àttay istibra istibra mooy laablu daanaka aw tur moo koy tàqaleeg xedda waaye lu bari ñoo koy niroo ci ay àtte istibra mooy lan mooy saabu jigéen sëyee sëy boo xam ne warul woon a am du lu jaadu mën naa am lu xaraam la dafa njaaloo moo xam ku am boroom kër la sax na ci lislaam ne moom njaaloo na boroom këram day téye boppam dañuy tàqale diggante ma boroom këram mu laablu naka lay laabloo diir ba mu waroon a xeddawu te mooy ñetti laab wala bu tollee diggante bu jëlee ab ëmb ca njaalo ga day continuer ba am doom ca lay isbraaw ga door a mat bu dee ku ndawe walla mu mage ba du gis baax istibraawam day doon ñetti weer bu dee soxna soo xam ne it amul boroom kër waaye sax na ne njaaloo na moom it dañ ko war a istibra ku ko bëggoon a ñaani kenn mënu koo takk li feeg laablu ko laablu gi mooy ñetti laab wala ñetti weer wala bu dee jëlee na ca ëmb ba ba muy am doom fala laablu ga di doora a mate léeg soxna si am ku ko ëpp doole jëfandikoo ko jotee ak moom wala mu jaawale ko ak soxnaam jotee ak moom xeet yu mel noonu yépp ay sëy yu wartoon a am te am na soxna sim dal day war ci moom mu laablu bu dee borom kër la borom këram daa war a téye boppam ba laablu maanaam bu dee ko am borom kër la borom këram daa war a téye boppam ba laablu ga di mat bu dee ko amul boroom kërit it laablu ga day mat bala ko kenn saña denc laablu gi ni muy toll mooy bu doon eddawu la mu war a eddawoo loolu moo ñi xamal ne kon bu dee jëlee na ëmb ci jote googa dana toog ba am doom laabloom door a mat bu dee jëlee wut cab ëmb dana xaar ba laab ñetti yoon salaasatu xuru bu dee ndaw la ba tollul fu muy gisee baax wala mag la ba weesu naa gis baax laablu ga salaasatu ashhur muy ñetti weer la war a doon kon istibraaw gis nga daanaka aw aw tur moo koy tàqale ak idda kii iddaw te ab dundam war boroom kër gi tax muy iddaw istibraaw bu amee it comme koo xam dafa jaawale jigéen ak soxnaam joteeg moom soxna si war a istibraaw jëlee na ca ëmb war a xaar am doom walla war a xaar ñetti weer ngir du koy gis baax wala war a xaar ñetti laab toll na fu mu gisee baax biir boobu boroom kër gi da koo war a dundal waaye li ëpp solo ñu war koo xamit ci ci àttey mooy jigéen ji idda wu ku ko denc iddatu talaaq wala iddatul wafaat wala kii ñuy istibraaw nii ku ko denc soxna ñu may la ko sëy boobu wérul fu ko lislaam fekk da koy tas boo joteeg moom lislaam day tas sëy bi ba noppi xaraamal seen diggante ba faw dootu leen dencante boo demee ci Muwatta imaam Malik ay àtte yu sax la yoo xam ne Omar ibnul Xataab radiyallaahu anhu moo ko àtte woon noonu te Omar dafa bokk ci alxulafaawu rachidun yooyu yonent bi joxoñoon ne fa aleykum bi sunnati wa sunnati alxulafaa'i rachidin moo tax kii nekk ci idda walla ku ñu war a laablu la ku ko denc ba jotee ak moom yaa xam ci tayeef la xam nga ne kii mi ngi ci idda nga denc ko wala njuumte la xamoo woon idda yëgoo li xew nga denc ko joteeg moom att yooyu moo war a dalaat ci kaw mooy tàqale seen diggante te dootu leen mën a dencante ba faw lu dul ci benn xaala benn xaala bi mooy lii waral istibraaw gi ci yow la bàyyee ko benn waay bëgg naa denc soxna waxtaan ak moom soxna sa nangul ko mën naa am waxtaan na ak yaayu soxna sa ne dafa bëgg doomam ñu xamal ko ne boo ñëwee ñu may la ko tax loola jur ak jege seen diggante ñuy ànd ñoom ñaar ànd boo xam ne jaaduwul ba jotee nañ bés bu ñu fasee sëy bi te istibraaw matul nañu xam ne sëy boobu du sëy bu wér lislaam da ko war a tas tàqale seen diggante soxna si dem laablu ji waaye nag foofu xaraamante ba faw du fa am comme li waral laablu gi ci moom la bàyyi ko bu doon ci keneen la bàyyikool yata abadu taxrim ci lay xaraam gi nekk abadan dootuñu mën a dencante ñoom ñaar loolu lu mat a bàyyi xel la ci àttey idda mu des nag soxna saang ci idda ñu ne la kenn mënu koo denc lislaam da koo tere yow mii moom idda ji yow yaa fase woon soxna si talaaq bàyyin soxna si mi ngi ci idda war a xaar ñetti laab wala ñetti weer wala yeneen xewoon na ba mu war a xaar eh, fukki weer ak ñaar ni ñu ko waxe woon wala ma nga jëm sax ci ñeent ak juróomi at wala ma nga toll diggante di xaar am doom ci la xiddaam di door a mat yow mi moom xedd ji boo bëggaatee soxna si ñu ay kilifaam man la koo may jërul xaar xedda ju jeex kon buñ ne la jigéen juy xeddawu kenn du ko takk mooy ab jàmbur waaye góor gi seqaloon ab sëy nga xam ne adda ji ci moom la sababoo moom saa bu ko bëggee takk mën nañ ko koo mayaat bu dee talaaq rajai la du talaaq bàyyil saa bu borom kër gi fase woon ne daa bëggaat soxnaam nañ xam ne fay li am na dafa am njuumte lu rëy lu tasaaroo luy am foofu lu bari sëy tas soxna si nekk ci adda waaj a dem ne moom nañ ko delloowaat soxnaam ñu ne ko déedéet imma soxna saa bañ wala ay way juróoma bañ wala ay kilifaam ak nuñ mën a kilifaawoo ci moom waaye àtteb lislaam fii mooy boroom kër gi fase saa bu taxawee ne moom day fay fayle day jëlaat soxnaam soxna si soxnaam la bu yaay ne bañ na wala bàyyi ne bañ na wala soxna si ne bañ na teewul moom sëy bi delluwaat na fa mu nekkoon soxnaam la lu mel noonu nag mi ngi am ñu ne soxna sa bañ na wala woy juróom bañ na mu toog ñu ne day jàpp idda may ko kaneen na leen wóor ne soxna si jàmbur la ñu kañ ko may amul soxna fay li du lu ñuy bañ foofu kan lan moo fa mën a xew jigéen bu bëggee génn cib sëy ngir boroom këram xëy na mënatu koo yor néew na doole xàq yi ko lislaam sañu euh, tegoon mënu koo matal wala sax mën na ko waaye ak caay-caay jàpp na ko ba matalu xàq yi doxoon seen diggante li mu sañ mooy ñaan baat boroom kër gi it bu dee ku am jom ku am diine kii ñoo seqoon ab sëy dem na ba mënut la continuer ñaan na baat dogu na may ko rek ci jàmm ak salaam yeewi ko bil maaruuf tasriix ko bi ixsaan ni ko alquran digle bu boroom kër gi ne du ko may baat nag mu sañ a dem ci àttekat foofu am na ñaari xaal benn bi mooy soxna soo xam ne moom la ñuy wax ni nga xam ne borom këram daa matal du day xàqam wala mi ngi jalgati ci kaw mi ngi koy tooñ mëntu la muñ ñaan na baat waaja ne du ko may na dem ci àttekat bi bu dee suñ réew mi ni muy doxee na dellu ci kilifa ya façon sëy ba kilifa yi it waxtaan xakamam min ahli wa xakamam min ahliha ñaari xakam yooyu dañoo am doole joo xam ne lislaam moo leen ko jox bu ñu waxtaanee càmbar lijjanti mu të ñu gis ne sëy bi daa war a tas buñ ko tasee tas bu demee ci àttekat it bu ko àttekat tasee tas na waaye soxna si du moom mooy tasal boppam sëyam du bàyyi ma koy tasal ab sëyam wala yaayam wala nijaayam wala magam moo tax foo fi déggee soxna su jógee cib sëy moo xam daa fay comme niñ koy waxee wala sax dañ koo fase ka ko fase woon ñëw na ne day jëlaat soxnaam mi ngi fay li taxit daam jeexagul soxna sa moom soxnaam la buñ ko nangoog buñ ko bañee lu mu yàgg-yàgg buñ ko mayee ña ngay mayee soxna si jàmbur loolu lu mat a wattandiku la moo tax tribunal ak li ñu koy ragal ragal ak li ñu koy wattandiku da mbir yi day toll foo xam ne moo fay sës te mooy gën loolu mooy soxna si yi nga xam ne euh, lu mel noonu gaar na ko te dogu na ci bëggutu delluwaat ci sëy ba sëy ba moom taxawaan na kooku li man rek mooy ñaan baat bu ko waajo mënul mu mayul mu dem ci yoon bu demul ci yoon mu dellu ca kilifa yi nga xam ne ñoo waxtaanoon ba sëy ba taxaw ñoom bu ñu waxtaanee wala ñu yebal ñaar ñoo xam ne ñoo leen di wuutu ñaar ñooñal buñ waxtaanee ba luñ juboo dogu ca mooy mooy loola mooy am bu dee gis nañ ne sëy ba dafa dafa dafa war a tas kon euh, loolu it lu lu mat a xam la beneen bi mooy soxna si nga xam ne ab sëyam naqari na mu fay loolu dafa bokk ci suñu aada yi war a dañ jigéen saa bu amee lu ko naqari ci néegub sëyam jël ay bagaasam dem na xam ne mi ngi ci njuumte kilifa yam fekkit ña nga ci njuumte ndax daganul ci jigéen muy génn ci lu dul ndigalul borom këram kooku daa nekk ci àtteeb ku dem féeteerlu ci lu dul ndigalul borom këram moo tax bu demee ba mënatu la sëy na ñaan baat bu ko waa ji mayee ci njëkk ak teraanga alhamdulilahi rabbil alamin bu ko mayul ñu dellu ci yoon wala ca kilifa yi ñu taxaw taxawaay bu mat ba tas sëy ba ci anam goo xam ne mooy anam gii lislaam gërëm kon ñu jeexalee ci àttey idda fu ñu la waxee ne idda jeex na rek moo xam iddatu talaaq la wala iddatul wafaat la ak xeeti yi muy xaamil bi wala almurtaabatu fi lxamli bi wala al al yaaisatu min al maxit wala muy alsagira wala muy almutallaqatu alxaayit ku mu ci ñoom saa boo xamee ne xiddaam jeex na loolu li muy tekk mooy buumu sëy gi doxoon diggante ma képp taxoon muy xeddowu moom dog na fay li mënatul a am ku ko bëgg sañ na koo ñaani mën naa sëyiwaat fu ko soob te mu dagan waaye moom mi ko fase woon it moom ñëpp a ceem bu ko bëggaatee sañ na koo ñaani comme ni ko ñeneen sañ a buñ buñ jubooyee ñu takkalaat ko ko mu doon soxnaam benn euh, xaala boo xam ne moom lañu jeexalee waxtaan wi mooy li ñu tuddee xedday góor xedda bi ñu commencé wax ba léegi wax nañ xeetu jigéen ñeeg ku ne na muy xedda woo ak sabab yay waral xedda yi waaye dafa am lu ñu tuddee fan la góor di xedda woo góor comme lislaam da koo tënk ci ñeenti soxna bu amee ñeenti soxna wàcc kenn ci ñoom soxna sa jàpp xedda na ko wóor ne moom it mi ngi ci xedda diirub xeddaab soxna si bu demee takk keneen kooka juróomeel lay doon parce que kee mu bàyyi woon mu nekk ci idda soxnaam la ba léegi moo tax foofu la góor di jàppee idda faw xiddaay soxna si jeex mu xam ne moom ñetti soxna la am mu door a mën a denc keneen waaye feek xidda ci soxna si yaa ngi ci xidda matagul bu takkee beneen soxna rek ma ngay dugg ci takk juróomeelu soxna te loolu lislaam da koo tere moom it kon ci gàttal lii lañ doon indi ci àttey idda ak ay xeetam ak jeexit yi nga xam ne mooy topp ci bu xidda amee waaye ak li nga xam ne rax nañ ko ci muy ay aada yenn yi di yoo xam ne amul njariñ day lor bi sonal kiñ koy defloo te du ko jariñ dara yenn yi di lu bon di lu dàqwanteeg diine yenn yi bon ga jéggi na dayoo ba xaw naa bëgg a génnee soxna si ci diine yàlla ji di ko sàkkal jeneen diine joo xam ne sore naag lool ji yàlla ak yonentam bii rëdd yooyu ñu war cee bàyyi xel war war koo wattandiku bu baax hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wasalaamu aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ Souleymane ci waxtaanu am solo yi nga xam ne def nga ko ci leeral ñu bind bu ajoon ci alxidda ay xeetam ak ay atteem wax dëgg yàlla leer na lool ci fàttali rek moom mi ngi doon waxtaanee alxidda ñu tudd léegi ay xeetam ak ay atteem ci tàmbali mi wax na importance bi nga xam ne tomb bi am na ko bokk na ca rek mooy saa su nekk danañ gis euh, luy waral muy am mooy benn danañ gis fase am wala danañ gis nit ku nit ku fi bàyyikoo te yooyu yëpp day waral ñu jàpp idda bi mu jógee ci loolu it ñëw na ci leeral ñu al bu ñu ko waxee ci bi ya lan lay tekki mu foofee leeral na fi lu am solo waaye li ñu ëppal solo foofu mooy al istilaahu shar'i bi ndax usul yi dañu wax ne ab baat bu fekkente ne dafa am ñaari maana maana luxa ak maana sariya dañuy jiital maana sariya ba ci maana luxa ba ci islaamu sariya boobu it mu mel ne boroom xam-xam yi wute nañ ci nañ koy xamle waaye mu lëngër gën a jeng rek jëm ci islaax bi nga xam ne moom la maliki yu ni firee al-idda boo xoolee waxtaan wépp ci ci taarif boobu ci la ci la tënku waaye mu leeral al-idda euh, war gi nga xam ne da koy war delloo ko ci alxuraan ak sunna dégg nañ aay yi nga xam ne jàng na ko ak xadis yi nga xam ne jàng na ko ci itam mu leeral itam eh, ma bi nga xam ne moo tax ñu yoon ah, al idda bokk na ca rek mooy dañ ci jaare ngir mën a sàmm aw aw aw askan ndax eh, jigéen ji nga xam ne dañ koy jàppaloo idda eh, amaana mën naa demaat faneen te bu fekkente ne def na ko ci biir idda ja ak jaxasoo mën naa am ci wàllu askan yi kon bokk na ci xekma bi xekma yi mooy sàmm sàmm askan itam ba tey Euh, jox euh, occasion borom kër bi nga xam ne moom moo ko fase bu fekkente ne fase ba day fasem rajan yi comme ni nga ko waxee mu mën a dellu delluwaat ak moom mu ñëwit ci asbaab yi nga xam ne mooy waral idda am bokk na ci at talaq yaa ayyuhan nabiyyu isaa talaqtum nisaa fa talliquhunna li na wa ahsul idda mu sart ñu am ci ay sart mooy balaa idda di ci am mooy na ak wet am wet gi it sartuñ ci ne nañ na ñaari way dencante jaxasoo kon na ak wet rek jigéen ji itam na doon jigéen joo xam ne jigéen ju mat a sëy la euh, góor gi itam doon mukallaf moo xam ne mukallaf mu euh, àtte sariya di dal ci kawam lay doon mu bokk ci dafa tam nikaaxul fasit nikaax boo xam ne bañ ko xoolee ba ci biir gis nañ ne am na ci arkaan yoo xam ne euh, xëtt na ci kon sëy boobu dañ ko war a ko war tas bu ñu ko tasee it jigéen ñi dafa war a jàpp idda foofu it mu leeral ci lu am solo mooy koo xam ne dafa dem ci ay maxaari maxaarima mu takk ci kooku dañuy jàpp ne sëyu maatay la def kon kooku buñ tasee sëy bi jigéen ñi du jàppan da waaye day jàpp lu ñu wax euh, al istibra naka noonu itam jigéen joo xam ne borom këram dafay bàyyi ko moom it war naa jàpp idda idda mooy ñeenti weer yoo xam ne day tegal fukki fan wala sin yu toofoon mi ko wa yasrun aswajan yatarabas na bi anfusihinna arbaata ashhurin wa ashran naka noonu itam jigéen joo xam ne dem nañ ba xamatuñ benn information ci borom këram moom it dañuy jàppee borom kër ba ginnaaw ba ñu defee ñu war a def ba noppi dañuy jàppee borom kër ba koo xam ne Euh, dafa dafa dafa faatu bu ko defee jigéen ji day jàpp idday idday ko faatu kon ñeent yooyu la tudd ci yi nga xam ne mooy waral mooy waral idda yi xeetu idda yi itam indi ci lu indi na ci lu baree bari xëy na waxtu wi du ñu may ñu jaaraat ci yu bari bokk na ci rek idda yi koo xam ne euh, borom këram bàyyeekoo na fi mu mu mu mu mu amub ëmb kooku it wax na diirub la nga xam ne moom lay jàpp idda foofu it mu leeral fi it jigéen joo xam ne dafa euh, maanaam ci biir néegu sëyam xëy na demaan na fa ne jëlee fa ëmb ñu fase ko ci biir ci biir ëmb booba wala borom këram bàyyi ko fa ci biir ëmb booba moom it leeral na ci mooy day jàpp idda bu ba mu jeex jàppaat euh, al idda naka noonu itam jigéen joo xam ne borom këram dafay moom it wax nañ euh, leeral na it fa iddaam yam mooy ajal ajalohun ayadaan xam lahun waaye foofu it daf ci leeral lu am solo mooy ki nga xam ne day sikki sàkk borom xam-xam yi séddale ko ci ñaar mooy bu woyof ak bu tar ñaar yëpp euh, bu woyof bi mooy day dem ba euh, muddatul xamli bi bi ñu xam mooy juróom-ñeenti weer yi bu fekkente ne romb na ko di am lu muy yëg ba tey mu jàpp aqsa muddatul xamli te borom xam-xam yi xëy na gën a jéng jëm ci juróomi at euh, mel na li ci wax bari na lool waaye mu ñëw rek ci aasaar yi aasaar yi nga xam ne moom mooy topp ci alan idda bokk na ci jigéen joo xam ne dafa nekk di jàpp idda jigéen jooju kenn sañu ko maye cib sëy waaye kenn sañu koo ngoro itam naka noonu itam danañ ko tere it muy def euh, lu lu ñu wax taar muy li nga xam ne sariya mayoon na ko mu koy taarloo bu jàppee idda sariya da da koy tere kon waxuñ yi nga xam ne xëy na sariya da ko da koo tere ndax ndax day mel ne jamono ji ñu baree bari dañuy jàpp ne buñu leen bu ñu leen waxee bu leen bu leen euh, laal ab taar dañuy jàpp yooyu tax waaye liñ ci jublu dëgg-dëgg mooy euh, taar bi nga xam ne sariya may na la nga def ko loolu boo jàppee idda sariya dala koy da la koy tere naka noonu itam jigéen ji nga xam ne dañ koo bàyyi war gi nga xam ne da ko war a war a dëkk ci biir kër borom këram ba keroog iddaam di jeex bu fekkente ne euh, idda euh, ba day faseb rajaxe wala fasem bàyyin ndax alxuraan day wax laa na bu tuxrijuhunna min na loolu it yaakaar naa indi na ci lu am solo lool kon daal wax dëgg yàlla waxtaan wi am na solo lool te it euh, te lool yaakaar naa ne képp koo xam ne doon nga ci doon nga ko bàyyi xel di nga ciy jël ay bind yu am am solo kon xam naa dañuy sant bu baax rek ñi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon ci waxtaan wi ku mel ne MKTV ak yeneen rajo yi nga xam ne ñoo doon jàllale waxtaan wi di leen fàttali tombu suba bi incha allahu taala mi ngi jëm ci euh, sunanu nabawiya taxaawana biha kathiru min an nas mooy sunna yi nga sunna yonente bi yi nga xam ne yu bare bari ci doomu aadama yi ko ginnaawal lool euh, ki ñu koy waxtaana mooy Serigne Cheikhouna Bousso cumbaleen incha allahu taala suba bu euh, juróomi waxtu jotee ba tegal fanweeri minute kon ñu fàttali rek képp koo xam ne fatwa yi nga xam ne mooy am ci jumaa ji am nga ci ab laaj boo xam ne bëgg nga ko jàllale mën nga ko jàllale ci numéro bii ñu bëgg a joxe muy 78 689 28 28 bu ko soobee yàlla danañ jot ci laaj bi incha allahu taala tontu ci tontu yu leer nañu kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax wa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.